baax a baax di leen ziaraat waaw ñu ngi nii fii si arène nationale te Ama Dia woote fii boole fi ay xale yu doy waar waa ñu ci diggante bébé 10 ak bébé 2 en na waa dem bébé 10 mu ngi direeku rek sa ñaari xale yaa ngi noonu ci géew gi bébé 10 mooy ndaamali eh mais en muy def nii mais bébé en 2000 li muy def nii ërtal na ko Bébé Diis at en 2000 Bébé Diis at en 2000 ñaari xale yaa ngi noonu ci géew gi saan placement de bras am Jóob indi Njaay mais xeex eh, xale yaa ngi bëgg naa loolu kon ay Saan Bébé 10 en 2000 Bébé en 2000 mais xale yi coup perdu ñuy sànni baaxut wallaay coup perdu ñuy baaxul waaye arbitre bàyyi leen ñu bëre waaye xale yaa ngi bëre di xeex nga nekk di wax ah Bébé 10 épercule oh boobu dal na si menton xale dañuy xeex dañuy bëre saan wala yaa ngi noonu ci géew gi nga bébé 10 at en 2000 bébé l'an 2000 wala en 2000 bu ma ci wax baax na ndax lépp lépp en 2000 kookoy <laughs> per cuun per cuun ak noonu nga def bébé 10 at en 2000 eh eh Iberkil góor Eh, eh, mais Bébé Diis li muy def nii mais Bébé Diis li muy xeex jaar na yoon de mais Bébé Diis mi oh eh. mais Bébé Diis Bébé Diis mais Bébé Diis mi tey daa disi de ba kaaw du am si ñoom ñaar ba kaaw du am mais xale yi ñamante nañ de mais xale yi ñamante nañ nag baa kaaw du am mais xale yaa ngi bëre yaa ngi xeex oh, oh, oh. mais Bébé Diis tey daa décidé digganteem ak Bébé l'an 2000 Bébé Diis digganteem ak Bébé en 2000 daan combat waaye arbitre bàyyi ko mi ngi bëre mi ngi xeex ah bal jàmbur Bébé Diis Bébé 10 ak Bébé L'an 2000 Bébé 10 ak Bébé L'an 2000 mais këpp da ka da L'an 2000 daa dóor moom tan Bébé 10 fi mu jàpp baax na Bébé 10 fi torop saan saan Bébé Diis at en 2000 Bébé en 2000 Bébé Diis at Bébé en 2000 saan ñaari gi ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi Bébé Diis at Bébé en 2000 nekk ñaari espoir nekk ndeysaan ñaari xale yaay na du géew gi diggante Bébé Diis at Bébé Lan 2000 ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ndeysaan bokk internet yi maa ngi jégalu dama xaw a tawat moo tax baat bi wàcc à 100 pour di leen jégalu bu wér waaw ar bi atewaat na leen at bébé en 2000 bébé at bébé 10 bébé l'an at bébé 10 ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi xeex eh, mais l'an 2000 arrêt dugal baax na waaye Bébé Diis sa ndaam njool la ndaam ak njool xale yaa ngi noonu ça fait dix ça fait vingt deux mille ñaari xale yaa ngi noonu saan combat espoir la ça fait 2000 ak Bébé 10 ñaari xale yaa ngi noonu di géew eh, daan na ko Bébé 10 daan na ko Bébé 10 daan na ko daan na ko daan na ko daan ko jëli bu rëy daan na ko oh, daan na daan na ko jëli laa ilaa Bébé def na mëninam jël bu doy daan. jël bi adversaire muy pied gauche may pied gauche ma ne lamb ji damay engagé kuy sonko lamb jeex bay ma bay maas mii dama wax naa ko keroog si guddi ne naa ko booy bi dama koy sonk lamb ji day jeex man dama am cër si lamb non man tey xeexuma parce que laa déggee sama consigne ñu nit ay kii moo ma jiitu si lamb te ku la te te te ki la jiitu si nekk bu lëndëm wax la fooy toogee ma ànd ak samay mag ni ñàkk jariñu booy booy soose. waaw doomu Mbawar. ndigal Fall Fallu. am na ndaw ma maa ngi sant Yaya Mbaye Yaya Mbaye booy boobu aw ma fayam. waaye man nañ ma jox si mbër yi caatu piyol laa soxla caatu piyol wala liis nañ ma ko jox wala liis njaago man dama dama am cër si daam dama war a teral sama yaay sama yaay laa war a teral nañ ñëw dama leen war a teral yéen ñëpp yéen ñëpp sama yaay mais sama yaay Ndoxoy Ndiaye damaa bëgg mu tedd si lamb te si lamb man si a laa yaakaar aw ma dara man Ndoxoy Ndiaye moo ma gënal doom moo ma gënal jabar sama tur kii ma tuddee sama bopp bañ ñox ba dañ ñaa ne da laa yàq da laa yàq parce que ay bëreem ngay bëree mais waneegu ma dara li kii mën waneegu ma ko si ma ko si lamb li kanaal mën waneegu ma ko sax si man ñi may ñi may pasaral ñoo ma dàq fop maa ngi sant am di faal a jazz at yom booy ka ñu nekk kaw tribune yom ibu at ndooy booy ñaa fallu gaa yëpp ma fi yaakara yi waaw Moussa Fall Baye Cheikh ndigal ala cuun nañ ma jox liis njaago mi ngi si xat mais dafa sonn si lamb ji sama mag yom ngàtte ñëpp maa ngi leen sant sama waa koñ nag waa Lamsar waa Lamsar aw ma seen fay président Ibou Dieng maa ngi koy di sant Modou Gueye mais Ibou Dieng Ibou Dieng Ibou kooku aw ma fayam Papis borom oto yi aw fayam doy aw fayam fay waaw man Modou ma si kaw tribune bi maa ngi ñëw di wax abi si fe na de Balla ngom at ngom place ngeen de ngom place Balla 3 at yor ngemb lu weex li am kisaar bu ñuul bi ngom ngom place génn na moo yor ngemb lu weex li bala 3 ak ngom place ngom place génn na ngom place am benn avertissement at bi sifle waat na diggante bala 3 ak ngom place mu nekk ñaari xale nekk ñaari espoir fii si arène nationale saan bala 3 di ko def Balla nekk ñaari xale ñaari ndaanaan saan eh, ngom Flash daw na jël tànk bi Balla 3 daw tëru ko ngom Flash jël tànk bi Balla 3 tëru ko xool eh, mais ngom Flash bu ko naka def na booy bawal defoon maam Balla oh. waaye ngom Flash Balla 3 ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew gi mu nekk combat espoir eh, waaye Ngom Place yaa ngi koy bàyyi mu ngi dajale rek di ngoobu mi ngi dajale rek di ngoobu fan la jëm ak yow eh, wicci na la daan na la Balla 3 daan na dara bàyyi nga dajale mu dee këf sa triceps bi oh. Fass Fass du ñu formé cuune. la duñ formé cuune Fass la génn Fass la génnee eh Fass mboolu Fass la soose gi noonu Lamine a noonu oh ñaari xale yaa noonu ñaari coach yaa ngi noonu. doo xew arbitre sifflé na fils de Alioune Seye ak Kamon Doso de Alioune moo ñu wan ginnaaw Kamon Doso lañ jàkkaar lool kii bàyyi ko Bosco Sew kii bàyyi ko Rock ñaari xale yaay noonu si digg géew yi ñu def placement de bras ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Kamon Doso ak fils de Alioune an président Alioune Seye at kamoon dooso eh mais kamoon dooso li mu def nii président Alioune Seye dëbb na ko naax président Alioune Seye dëbb na ko naax président Alioune Seye na ko naax waaye kamoon dooso daa raaj kamoon dooso daa raaj kamoon dooso jàpput waaye président Alioune Seye daa jàpp sa dënnu ngemb la daa jàpp sa dënnu ngemb la président at kamoon dooso saan ñaari xale yaa ngi si géew gi nekk combat espoir saan kamoon dooso at uh, Fils de Alioune nekk ñaari xale nekk ñaari espoir si làmb ñoo xam ne ñu làmb ya mais kamoon dooso lu mu def nii kamoon dooso lu muy def nii kamoon dooso lu muy def nii eh, mais kamoon dooso mi wet gi day wax de waaye Fils de Alioune li nga amoon est-ce ko amaat incha allah sukar bi la wala eh, fils de Alioune Seye daan na ko daan na Kaman Doso fils de daan na Kaman Doso fils de Alioune Seye daan na Kaman Doso jël bu sandwich amul benn werante la daan saan fils de Alioune Seye boos ko sow boy saan maa ngi leen di xool ñooy wax li làmb nangoog bañ bo Baye Tapha Tine na ba sa biti am lu mu sànni ñëwaat arrière na ba sa biti am lu mu sànni ñëwaat Baye Tapha Tine boy boy am na lu mu sotti Baye suul na ko xale yi da kaa mu suul ko arbitre baa ngi wax ak ñoom làmb nangoog làmb ne mbooy côté Notto Diobass waaw waaw saan booy mbooy mbooy ak Baye Tapha Tine booy mbooy mbooy Baye ma gisee a baay Tine nag sama xel day dem sa maar saan Baye maar bu Baye Tapha Tine ma ngi bu baax a baax di ko ziar rawatina at taam bu caatu yaraax saan ñaari xale yaa ngi si digg géew gi Baye Tapha Tine at booy mboy ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi mu nekk ñaari xale doy waar saan Baye Tapha Tine at mboy mboy mboy mboy Baye Tapha Baye Tafatine boobu mais Baye Tafatine lu mu def nii Baye Tafatine Baye Tafatine Baye Tafatine Baye Tafatine booy booy maa ngi lay dajale eh, koy kal wala mais Baye Tafatine daal Baye Tafatine mbot wala da koy zongale jéggi na ko eh, ko jëli bu doy waay oh, Baye Tafatine bu doy waay oh, Baye Tafatine Baye Tafatine daan na bu doy waay. waaye Tapha Tine daan na ko jël cas Pip moo la woon ginnaaw de non Baye moo la woon ginnaaw. arbitre ba ñaar arbitre ak Baye Waly Baye moo ñu woon ginnaaw ah lii daal at bu sible waat na Africa Pip at Baye Waly ñaari xale yaa ngi noonu ba di ma gisee Baye Waly sama xel day dem ci Omar bu Raskas mais Baye Waly Africa Pip xeexkat la nag Africa Pip xeexkat la waaye Baye Waly bërekat la waaye Africa Pip xeexkat la saan Africa Pip by Wally Africa Pip at by Wally eh Africa Pip tey daa ñëw pour bëre waaye Baye Wally ndaanaanu bërekat la waaye Africa Pip kenn du moom diggante Africa Pip at Baye Wally Africa Pip at Baye Wally saan Baye Wally lum nar Baye Wally ngi dajale Baye Wally ngi dajale Baye Wally plaqué ne ko eh Africa Baye Waly daan na ko Baye Waly daan na ko Baye Waly daan na ko oh Baye Waly daan na ko Baye Waly daan na ko Baye Waly daan Baye Waly daan na ko Baye Waly daan na ko Baye Waly daan na ko oh Baye Waly Baye Waly ndaanaan la Baye Waly ndaanaan la kenn du moom kenn du Baye Waly allo waaw esat esat maas maas kenn kenn du bàyyi waali kenn du bàyyi waali waaw fii maa ko moom kenn du bàyyi waali bàyyi waali ngi noonu moom mooy bàyyi waali barke yoon tubi daan xam ne kii sama doomu ndey la Boubacar barki yàlla kii aw ma fayam kii ak papa ak bëri combat bi kii dama kaa dàq bëri ma jox ponkali dama koy bol daax ko palaaka mooy mbooti ma joral ko man doomu jalaaw moo ma yar le 10 ñu defaral Maguette Seck papa yaa dina mën a doom yi demoon ñëwaat na maa ngi nii bàyyi waale waaw arbitre leen di wax li làmb nangook li làmb bañ booy piir at far bu jar saan booy piir am na am na ñaar am na avertissement benn far bu jar am na benn avertissement ñoom ñaar ku ne am ko benn avertissement far bu jar ak booy pir ñoom ñaar ku ne am ko benn avertissement ñoom ñaar ku ne am ko benn avertissement far bu jar ak booy pir ñoom ñaar ku ne am ko benn avertissement arbitre bi sifflé na diggante Farbu Jar ak Boy Pire Farbu Jar ak Boy Pire ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ñaari xale yaa ngi si géew gi ne combat espoir saan Farbu Jar ak Boy Pire saan xale yaa ngi noonu si géew gi spécial saan Farbu Jar ak Boy Pire Far bu jar ak Boy Pire ñaari xale yaa ngi ci digg gi placement de bras ñu ngi saan bu jar ak Far bu jar ak Boy Pire digg géew bi combat espoir la komba déclenchement la caan booy pir at far bu jar kii bàyyee ko waalo ki bàyyee ko parcelle kii roon indi ko kii maam lees indi ko ñaari coach yi ndax soo gisee maam lees a ngi ne woon toog waaye roon a ngi ne la toog saan booy pir at far bu jar saan far at booy pir saan ñaari xale yaa ngi noonu diggante far bu jar at booy pir ñu ngi def placement de bras ma nuyu waale yaay faal tik tik oh kenn du sofi si man buur géwal séeri caat oh waaye faatu ceema kenn du yow si man faatu ceema séeri maam cerno yàlla na sa jàmm yàgg yow Fatou Thiemo yàlla na sa jàmm yàgg waaw Elisar Bikol maa lay nuyu bu baax di la ziar nuyu waa Bikol yëpp eh Boy Pire remise na Boy Pire remise na Boy bu dal combat yi fi jaar yëpp a gaaw bëri leen bëri leen Boy Pire Boy Pire eh mais Boy Pire li muy xeex jaar na yoon de Boy Pire far bu jar Boy Pire at far bu jar Boy Pire Boy Pire mais Boy Pire lu mu def ni booy Pire daa song song bi baaxul sa far bu jar ërtal na ko kaaw ba kaaw du am ba kaaw du am eh, Boy Pire far bu jar ba kaaw du am ba kaaw du am ɓa kawoɗo am debbo e pir boy pir at far bu jar boy pir at far bu jar ñaari xale yaa ngi noon si géew gi ne combat espoir saan maam lees mu ngi wax ak far bu jar Boy Pire at far bu jar ñaari xale yaa ngi noonu ci géew gi le combat espoir Boy Pire Boy Pire li ngay xeex baaxul Boy Pire li ngay xeex baaxul waaye far bu jar chaque jour ñu ngi Boy Pire ak Far bu Jar ñaari xale yaa ngi ci digg géew gi combat yi fi jaar yëpp a gaaw kon bëri leen bëri leen bëri leen bëri leen bëri leen bëri leen espoir la bëri leen fi Boy Pire ak Farbou Diar combat espoir combat espoir Boy Pire ak mais Boy Pire Farbou Diar dox na si dugub bi Farbou Diar door na ba kaw du am eh, Farbou Diar daa def gauche door gauche daw jàpp téléphoné ko xar jéppit mu bañ plaqué na ko mu bañ plaqué na ko Boy Pire résistance saan Boy Pire ak Farbu Jar Boy Pire ak Farbu Jar Boy Pire ak Farbu Jar Boy Pire ak Farbu Jar Jar a ngoobu Boy Pire Boy Pire Boy Pire at uh, Farbu Jar Boy Pire at Farbu Jar bode leen fi nga Boy Pire at Farbu Jar igiri Waalo la ak igiri Parcelles at waa Parcelles saan daan bu ma gisee booy biir sama xel day dem si Alioune Seye sama xel day dem si Mathieu waaye saan booy piir booy piir jàppul booy piir fi nga jàpp baaxul de booy piir at far bu jar Eh, booy til booy perkil booy pil booy pil perkil dóoral ma dóor dóoral ma dóor xeex saan booy pir booy pir taa arbitre bi la waat na booy Pire diggante Boy Pire diggante Boy Pire ak Boy ak Farbu Jar Boy Pire Boy bu Boy Pire ak Farbu Jar Boy Pire Jar ñaari xale yaa si géew gi Boy Pire ak Far bu Jar Boy Pire Far bu Jar Boy Pire Far bu Jar Far bu Jar dem na ardo léegi ñëwaat ndax Boy Boy Pire dafa ko fay dàbbali waat wala déet dina leer si kanam Boy Pire Boy Pire ar far bu jar Boy ar far bu jar saan Boy Pire eh, mais li la nii eh, mbacam gerte mbacam gerte ba kaw du am ba kaw du am ba kaw far bu jar Boy ar far bu arbitre sifflé waat na arbitre sifflé na day bu jar am na ñaar avertissement waaw far bu jar am na ñaari avertissement booy pir am na benn arbitre sifflé waat na ba naa bañ jógee ardo ñëw booy Pire sonn na moo tax làmb entraînement rek a wóor waaw entraînement rek a wóor làmb entraînement rek a wóor booy Pire ak Farba Diar combat waaw moo tax Lamine entraînement rek a dem saal miskile yëpp jaru kontaagal li wóor taw si suuf mooy li wóor mbër mu la ëpp moo la mën a bëre combat bu yàgg waaw mbër mu la ëpp endurance moo la mën a bëre combat bu yàgg xale yi dee leen dee lu wóor bu ngeen di contact lu wóor booy pir booy pir xar bu jar bëre leen ar ana songu bëre leen songante ana songu ñaari ndaanaan yu toll ni yéen eh, booy piir da ngaa tëru na ko yooru la <coughs> songam yooru la booy piir far bu jar pakete na ko mu bañ da ngaa bëgg a daw mbaar ko wala déet dana leer oh daan boy pir at far bu jar en combat bi daa yàgg combat bi daa yàgg combat bi na si ñoom ñaar ñëpp waaw at bi temps bi jeex na at euh, boy pir far bu jar at boy pir far bu jar am nga ñaari avertissement booy pir am nga benn far bu jar at booy pir far bu ñaari espoir nekk ñaari ndaanaan nekk ñaari ndaanaan far bu jar at booy pir combat espoir seen combat warul yàgg ginnaaw si mënta xam xam mooy far bu jar far jar am nga ñaari avertissement booy pir am nga benn avertissement kon combat bi si mënta xam xam mooy combat espoir la combat ñaari ndaanaan la far bu jar yooru na far bu jar sànq ba léegi li songu baaxul da ngay yooru saa bu ñu la remisé mën ngaa toog oh Farba Diar li ngay songu baaxul bokkul Farba Diar dellu calculer li ngay songu ñaari xale yi Farba Diar ak Boy Pire combat espoir eh Boy Pire eh, takk na ko Farba Diar ko lon ko mu jeeg kott na ko Boy Pire bañ na Boy Pire da koy mbot wala da koy wicc oh ak Boy Pire kon ak Pire la kon nag Meewaan la waa Kër ma Kër ma yaa ngi taxaw di ko xaar kookoy Boy Pire saan waaye mi ngi bëreeg doomu parcelle bi doomu joor bi doomu 19 bi doomu 26 bi parcelle 1 ba 26 ñëpp moom la ñuy bëggee moom kan moom far bu jar te diggante ak Boy Pire saan diggante ak Boy Boy Pire ak Far bu jar Boy Pire ak Far bu jar Boy Pire ak Far bu jar Boy Pire ak Far bu jar combat espoir la combat espoir la combat espoir la ñaari xale yaay noonu ñu ngi am jàmm daaw dox xale si géew gi ñaari la maas ba li yàq sama der espoir ak noonu ndeysaan booy pir at far bu jar am na combat la combat espoir booy pir Boy Pire at far bu jar Boy Pire at far bu jar ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Boy Pire na ko mu bañ plaqué Boy eh war na ko ndomba <coughs> Boy Pire war na ko ndomba penalty la penalty la waay Boy Pire ay waay penalty lamb la Boy Pire rati na ay waay waay Boy Pire rati nga booy pire penalty daa soonu daa jeexal daa jeexal mbor mu ndaw da contact booy pire dang da jeexal lamb ji dang amoo si koofur booy pire ndax combat bi waroon nga see contact lu wóor booy pire waroon nga see am physique bu doy ndax combat bi yàgg na ñàkk moo tax nga wër ndomba mu rëcc booy pire waaye kii di Far Bou Diar combat bi am na si endurance ndax am na si koofar bu doy ndax war nañ la ndomba nga fi taxu ba génn si Boy Pire ak Far Bou jar Boy Pire ak Far Bou Diar Boy Pire ak Far Bou Diar Boy Pire और फरबुजर पढ़ाके वाड़ना को बोई फिर उज्जेगी चाल बोई फिर फरबुजर चाल boy pir ar farbu jar jàppante yàgg ñaar boy pir ar farbu jar boy jar ñaari espoir ñaari ndaanaan nekk combat espoir boo xam ne dafa yàgg daaw la woon ñoom ñaar ndax ñaar ñi fi ñu toll nii ku ci ëpp endurance ku ci ëpp koofur yaay moom combat bi su ñoom ñaar ku ëpp ku ëpp koofur yaay moom da ci ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar xar xar waaw waaw booy pir daan ko booy pir daan ko daa waaw booy pir daan ko waaye jël am na waaw ñu ngi lay fay bëre bi yàgg lan waaw xam am fuñ jóge yow xam nga umpule woo ñun daanaan lañ te nee naa la defet day suur laa naan wallahi lazim dañuy ñëw boo xoolee suñu combat yi ñàkk yëpp ñun ñooy bëre ba dee te plus de 100 kilos la ñuy bëreel wallaahi lazim ñooy fournir ba maa ngi doog a ñëw ci làmb taxaw kon daa am lu mu demee su ma ñëwee fournir ci ay ponkal ñàkk fourniraat ñax tey waa ji ñëw yokku poids bi gis nga ko daawul bëree poids bi tey dafa yokku poids bu bari ma ñëw am si yéen ñaar ñëpp dafa yàgg parce que dafa yokk poids bu mu liggéeyul ba mu sonnee yàgg na maa ko bàyyi ci biir gis nga def ma jeexalee yàgg na eh, waaw xam nga ne ñun ay xale lañ booy biir booy biir mi daan gis. si ay combat ak booy biir mi gis tey am na différence. nee naa la defet la tax tegale defet moo ma sonal mais kii maa ko dàq bëri ñeenti yoon yéen xam nga li ma leen wax tey bu ma sonnoon fi ma yegg gis nga ñaata yoon ba fee temps yegg na ma fa. moo tax booy biir war ndong ba ma. benn loxo bi jàpp la mais dafa rey benn loxo bi ba pare di déplacé wu taxawul benn place. naan la booy biir li ma wax du ma yi di ko wax Ada Fass Tapha Mbeur ku ci daan nañ ma ko jox. samay naataango lañ mënuñoo dem bàyyi ma ñoo dugandoo ci làmb ëpp ñu ma ay combat nañ ma jox ñooñu pour lan booy yi ñuy tànnal yoon lañ war a bàyyi nañ ñu jox ci booy ñun ay ay combat rek lañ fi bëre ku ñu xam-xam ne ñun duñ ragal ay combat risque rek lañ fi bëre billaahi wallaahi kon xam nga nañ ñu jox ci gars yi ñu bëre suñu ni kan la kii sama booy la yàgg ànd ak moom komba bii passé mi ngi fa yàlla xam nga def muy doon liggéey ci géej gi xam nga wàcc di takk mbaal bi di tax euh, gaal gi des fa billaahi ñu koy naqarlu loolu moo tax ñu rendre ko hommage ci làmb ji tey di ko naqarlu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla xaaree ko àjjana waaw ndeysaan waaw Abdoulaye Diop lu mu gàddu Abdoulaye Diop la gàddu waaw waaye saak bi saakum école la wala saakum lu mu doon loolu laay laaj la saakum la wala saakum lu mu gars yi dañoo dellu jardin d'enfant. di samay wax la mi na ko wax. dina gars yi dañoo ay paa yi dem jardin. Ablaye Diop daa dem jardin. Ablaye Diop daa dem jardin. Ablaye Diop daa dem jardin ay saako lam def. ma daanoo ngi noonu taalibe Serigne Babacar Sy baa ngi nii borom juróom taalibe Serigne Babacar Sy baa ngi nii kenn du moom si man ma daar kenn du yow dinaa la yow yaay taalibe Serigne Babacar ma daar ñëwal ay waay ma daar ñu ma daar yaay léegi na ma daar ku ne xam-xam ne yaay taalibe Serigne Babacar Sy yaay Seydi Diall taalibe Serigne Babacar baa ngi nii Seydi Diall kenn du yow si mim réew moo tax defal li nga daan def rek moo tax defal li nga daan def rek man ci xaadim moo tax man moo tax rek noonu. xale yaa ngi noonu. Daa daa nekk écurie Bac seraas ak laa Diop Yoff saan ñaari xale Aliou a ngi noonu nekk écurie Bac Seras xale yaa ngi noonu. lépp jàmm. bu rafet foo nekkoon. si mim réew foo nekkoon si mim réew. kon kay du man kese tooy gi du man kese. tooy gi du man kese. la <laughs> mi nee na troisième vague corona bi la. kon kay tooy gi du man kese. waaw. Abdoulaye Diop. Bika mi nag moo nekkoon ZAP waaye dafa jugee dem ba Seras Ablaye Diop nekk Yoff Ablaye Diop nekk Yoff Youssou Ndour kaay Youssou Ndour kaay kaay Youssou kaay. weer caawa leen mbëkk faj leen. lamba ngi noonu. lamba ay mbokk lañ. ndeysaan ñëpp a bokk. ndax. boo jaaj waaw waaw la nii waaye ki ma kii la muy def. ay waay waay li kay kii eh moo tax joxal ma ko sama téeméeri waay xoolal la muy def xoolal ma kii la muy def saan at bi baa ngi wax ak ñoom diggante Pika bu Bac Seras ak Ablaye Diop bu Yoff Pika bu Bac Seras ak Ablaye Diop bu Yoff Pika Pika Pika bu Bac Seras ak Ablaye Diop bu Yoff saan ñaari xale yaa ngi si géew gi moo ñu wan ginnaaw Ablaye Diop lañ jàkkaar lool Ablaye Diop moo yor teekeleer bi Pika moo ñu wan ginnaaw yor ngeen mu ngeen mu lu vert li Pika at Ablaye Diop tan ki bàyyee ko ki Seras ki bàyyee ko Yoof muy ñaari xale ñaari mille lourds ñii ay mille lourds lañ wala mën nañu ay poids lourds lañ ndax euh, ëppante wuñ poids ëppante wuñ taay kon poids lourd bu ja combat bu jaadu la grand combat bi jaadu na Lamine ñoo tolloo taay ñoo tolloo maas ñoo tolloo lépp ëppante wuñ si dara sa ñoo dee parandoo si lambu kon jaadu na kon jaadu na jaadu na daan mais Abdoulaye Diop lu mu def nii mais Abdoulaye Diop lu muy mais eh, mais Abdoulaye Diop mi tey daa décidé de eh, Abdoulaye Diop Pika takk na ko Pika Abdoulaye eh, Pika wër na ko ndomba daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko Pika daan na ko Pika daan na ko Pika daan na ko Pika daan na ko Pika daan na ko jël bu daan na ko Abdoulaye yaa daan sa xale yu ndaw Pika ay xale yu ndaw la fi indi xale yu ndaw xoolal ma li Pika indi fii ceeb sew bi Pika indi ñu si stade bi Lamine pour lan la Pika yab gim ñu yab indi ñu ceeb